maa ngi nuyu mbokk yi ak ñépp ñi nga xam ne ñëw nañ ci bisub Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi nuyoo bi nag dama koy def ci turu njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké di dalal gan ñi ak sant Cheikh Mouhamadul Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moom mooy ci initié bis bi te comme ni ma ko waxoon barki démb rek bis bi mooy quinzième journée quinzième édition mais gis nañ ne année bu ne yàlla da ciy gën a def xewal muy gën a rëy di gën a yokk kon sëñ Basiru gannaaw ñu dalalee mbokk yi yëpp njabaru sëñ Baara gi yëpp ñu ngi lay sant ndax xam nañ ne lii ngay def seen tur nga koy ngeen koy def njabaru sëriñ Tuubaa gi yëpp tam ñu ngi lay sant lii nga def nag day lu am solo ndax dana day dana permettre njabooti diine yépp euh, jaxasoo nekk benn kon sëñ Basiru maa ngi nuyu sëriñ Moustapha Abdoul Lakram mi nga xam ne moo jiite délégation bu waa kër maam Cheikh Anta nga jagle leen bis bu màgg bi di nuyu mboolem kilifa yi nekk ci kaw tribune bi te léegi tudd nañ seeni tur moo ko jéemee day day gudd ca day duma mën a wax ñëpp kon daal ñu ngi dalal mbooloo mi di leen wax marhaban bikum te ñaan yàlla lépp liñ jublu ci bis bi ak liñ bëgg yàlla matale ko waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh